Sunugal 24 point net l'information mbokki xarit yi ñuy taxirlu ci suñu gaal 24 dal leen ak jàmm ñu leen di jaajëfal ci tànneef gi ànd ak yéen jukki leen xabaar yi sunugal ah, koy dooree ak réunion d'urgence bi nga xam ne moom la njiitu réew mi woote woon démb ci talaata ji ca palais de la république ngir xool ndaka la ñuy saafara jafe-jafe sénégalais yi ci mbënd mi mu mel ni ndaka noonu la convoqué ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur Mansour Faye ak ki nga xam ne moom moo di Omar Gueye nekkoon nañu ay ministre de l'eau et de l'assainissement ak ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo ngir ñu jéem a xool naka la ñuy dugale xaalis ci mbënd mi waaye itam xool ci yan mooy la ñuy dimbali askan wi mu mel ni naka noonu la entente am ci seen biir ñu yëkkati lim bu toll ci 10 milliards daal di koy teg ci table ji ngir dimbali ci askan wi yemul foofu njiitu réew mi génn na lu tollook ñaari junni ak juróomi téeméer yoo xam ne ton ay tonni ceeb la ci tem ceeb bi nga xam ne moom la japonais yi dimbale woon sénégalais yi waaye lam ñu xamal moom njiitu réew mi moo di fukki milliards yooyu yëpp duñu ko jox askan wi dañuy jël li nga xam ne moom moo di ñetti milliards yi jox ko ñi nekk ci ndox mi jeneen juróom ñaaree ca des service public bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum kaaraange gi ci mbënn mi mu di ONAS euh, sapeur pompier yi ak ñeneen ña ca des mu mel ni daal askan wi la ñuy doon xaar ci moom njiitu réew mi mu yëy ca yàbbi waxu ci mu di 750 milliards yi nga xam ne moom la joxoon kii di Serigne Mbaye Thiam ngir ci plan décennal bi nga xam ne moom la ñu doon xaar 2012 ba 2020 moom njiitu réew mi yëyu ca yàbbi ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi ak première dame Marème Faye Sall boobaak léegi ñu doon xaar mu wax ci mbënn mi mu mel ni daal mujjee naa fippu la mu gis ci ay bëtam moo ko mayeetul mu toog ca pale boobu léegi warul mu daal di génn dem ca Pikine Est jàkkaarloo ak mer ba di Abdoulaye Timbo ngir ñu xool ndaka la ñuy dimbalee askan wa nga xam ne ñoo yeewoo ca commune Pikine tax na kii di Marème fay Sall yëkkatu yëkkati lu tollook ñaar fukk ak ñeenti moto pompe daal di leen koy dimbalee ngir ñu pompe ca ndox ma waaye itam fukki junni ak juróom benn yoo xam ne ay litre carburant ngir ñu def ko ci oto yooyu lee mën a pompe ndox ma juróom fukki toni ceeb juróomi junni litre diwlin ak li nga xam ne moo di ñaar fukk ak juróom juróomi toni suukar pour ñu mën cee dimbali 16 communes yi nga xam ne moom moo nekkee ca diwaanu Pikine ba tey coowal mbënd maa ngay wéy ak kujjeeg politique gi bu ñuy d'accordee ñuy ñu ki nga xam ne moom moo di Birahim Seck ca forom civil yëkkati na ay kàddu dal di xamal askan wi nag ne lii du lenn lu dul ay ñaawteef itam waaye ñi nga xam ne ñoo ne ci nguur gi dañuy jënd askan wi ndax tàmm nañ saa bu Sénégalais amee jafe-jafe njëkk xalaat moo ceeb ak diwlin ngir nax leen ci waaye itam seral ci seeni xol mu mel ni ceeb ak diwlin daal doon na lu tiital askan wi kàddu yooyu la Birahim Seck yëkkati. Alioune Sané ba ca mouvement Y'en a marre moom itam daanaka uh, mbir mi métti na ko ba mu yëkkati ay kàddu daal di say wax ci 750 milliards yi nga xam ne doon nañ xaar président bi ba mu duggee démb ak ñooñam ca palais ba génn ñu daal di ciy wax nag joxe boobu le rapport uh, détaillé ba mu mel ni njiitu réew mi waxu ci moom Alioune Sané ma nga ñuy xamal ne lu cent 750 milliards bu duggee ci mbënd mënu ca dara ana lan la ca 10 milliards mën coowal troisième mandat li ci réew mi mu mel ni nag ki nga xam ne moo di maître El Hadj Diouf daal dina ci yëkkati ay kàddu démb lam ca xamle nag moo di kii di njiitu réew mi di Macky Sall mësul xalaat lii di troisième mandat wala bu ko tey itam doonul loo xam ne décision boppam la amaana ña nekk ca ginnaawam fare ca Macky Sall ñooy ne ca ginnaaw di ko jàmb te Macky Sall bu bëggee jàmm ci réew mi bu mu xalaata wax lii di troisième mandat. mu mel ni seeni wax daawuñu ko bàyyee xel mu di kuréel gii di agence nationale de l' aviation civile et la météo ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xam ne moo féete ci jaww ji ña nga ñuy xamal ne taw bi dina am nag li jàpp talaata ba àllarba ci guddi ndox mi dina bari lool ba tax na fépp fu waay mën a nekkit na jël li nga xam ne moo di ay kaaraangeem nemmeeku nañ ko ci gox yi nga xam ne fa la ndox ma di ëppee mu di est sud ak centre ouest. upp baax na ci laax bu tàng mu mel ni ñoom daal ba ñu defee seen réunion boobu lee ba noppi dañoo génn tasaaroo dugg ci askan wi ngir waxtaan ak ñoom ki nga xam ne moom la ñu dénk l'eau et assainissement di Serigne Mbaye Thiam moom démb ma nga woon ca Joal ngir waxtaan ak ñoom ca jafe-jafe ya ñuy dund massawu leen waaye itam apporter leen ay solution ca yooyu la jafe-jafe bokk na ci lim bu toll ci 1 6 virgule 1 milliard de francs CFA daal di leen koy dimbalee ci li nga xam ne moom moo di un réseau d' assainissement des eaux usées de 42 virgule cinq kilomètres bokk na ci itam 2859 branchements domiciliaires yoo xam ne moom fëse na leen ko defal ak quatre estation de pompage et de traitement des eaux usées. ñu àddu jëmale ci leneen mu di naqar wi askanu Sénégal yeewoo tey ci génnuk àdduna koo xam ne référence la woon ci biir réew mi mu doon wuyoo ci turu Fatou Daniel Diagne nekkoon administratrice générale de la fondation Servir le Sénégal bi nga xam ne première dame Marième Faye Sall moo ko taxawaloon. Fatou Daniel Diagne nekkoon analyste financière et expert en développement ginnaaw bi nga xam ne kii di docteur Adrien Diop wàcce woon moom moo ko wutu woon ci googule kuréel waaye tam taxawaloon na Sénégal fépp ci àdduna bi ngir doon xeexal li nga xam ne moo di réewam bu ñu sukkandikoo ci les échos moom Fatou Daniel Diagne nekkoon na euh, aux États-Unis ambassadrice fële ci Mexique lii Nicaragua Honduras ak fi nga xam ne moo di Panama ak ca Guatemala moom faatu Daniel Diagne ñu ngi ñuy xamal na lii di malaise moo ko rey doon na loo xam ne faatoom gi bett na askan wi ba bett na ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi ba tax na ñu ngi koy jàll képp koo xam ne. yaa ngi ci biir réew mi ndaxte doonoon na nit boo xam ne dara ñoru ko woon lu dul réewam te ñuy ñaan yàlla xaaree ko ci aljanay fir daw si mbënd mi ci réew meeg këlëf-këlëf ji mu àndal mu mel ni bu ñuy nekkee ci naqar ak tiis ña ca des a ngay profito di politigaale ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom fu Macky Sall teg tànkam mu teg fa bosam mu mel ni daal mayu ko dara ci mbënn mi ndax dem na fépp foo xam ne ndox fay taa seeni boroom di dund ci ay jafe rawatina ca diwaanu Kër Massar ak fi nga xam ne moo di Cambérène Pikine dem na fa waxtaan ak ñoom mu mel ni daal ni jox nañ ko bopp di ko tàccu teg ca itam muy dégg lii di futur président li waral ki di Ousmane Sonko tey nag dal di euh, organiser lii di conférence de presse fa seeni waxtaan ak askan wi ngir ñu ubbi seeni gët di xool fan la Sénégal di mujjee ëllëg ñu wax ci faatoog élève bi nga xam ne moo doon def bac di wuyoo ci turu Djibi Sadio doonoon koo xam ne élève bu brillant la tax na bi mu génnee àdduna ñëpp mettit lu ko waaye itam la nga xam ne moom lañ ci doon dégg ci feebaram bi ko yóbbu mu mel ni du la ca am ndax ki nga xam ne moo di papaam génn na daal wax nag ne doomam joojulee ñaari fan avant muy defi examen biir ba da doon metti mu mel ni looloo ko yóbbu moom Djibi Sadio ña nga ñuy xamal ne koo xam ne jàng mësu ko yemaleeg dara saa su nekk da doon jël li nga xam ne moom moo di première wala not ya gën a baax ca classe ba moo koy am bokk na ci itam ña ngi ñuy xamal ne moom Djiby Sadio nekkoon na koo xamante ne nii ku fonk ay waajuram la waaye la doy waar ca mbir moomu le ba résultat ya génnee dafa jàll li di baccalauréat d'office te deful matière bi di SVT ak histoire géo Touba ak xeeti ñaawteef ya fay faral di am ci wàllum kujje mu mel ni daal loolee ba tey dakkagul ndax ab awo moo fa daal di nag jàpp ñaareel ba dóor ko ba instant bi ma nga état d'urgence tax na ki nga xam ne moom moo di awo ba yoon daal dina koy teg loxo ma ngi ca police u Mbàkke mu mel ni daal ma nga zéro étoile waaye ñaareel ba itam ma ngi ca hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba. Sénégal ak yu ñaawte fi ñu fi nemmeeku ci xale yi jigéen yi muy jur rey wala jur sànni mu doon loo xam ne itam nguuru Sénégal fa yéene na cee jël dogal boo xam ne képp ku ñu ci jàppati nga def yooyu la ñaawteef dinañ la daan daan yu metti waaye kii nga xam ne moom mooy xale bu jigéen bi def ñaawteef bi lee mu mel ni yëgul moomu la mbir ndaxte la mu def ñaaw na torop jur doom bu jigéen boo xam ne moom bëggul ndaxte dañ koo ëmbal mu daal di lëmas xale ba jógee ca jàmm gën dem ba fa nga xam ne moom moo di kër sëriñ bi nekk ci avenue Blaise Diagne lëmas xale ba teg ko fa waaye nag gone gaa ko ëpp bopp ndax ba mu ko fay teg am na ku ko teg ay gëtam bàyyi ba mu wan ko ginnaaw mu dem xool mu dib xale mu yëkkati ko ba noppi woo police ba jamono ji dal dinañ koy teg loxo moom xale bu jigéen boobu lee mi ngi garde à ba noppi police dal di ci ubbi ab l'enquête alkaati du bàyyi dóor metre El Hadj Diouf yëkkateeti na kàddoom jëmale ko ci màggal ak Touba gi mu mel ni daal ma ngay firndeel ba tey nii màggal ak ren gi moom bokk ci demu ci du ci waaj a dem ndaxte moom mi nga xam ne moom mooy maître El Hadj la muy def xam na ko te murit sadir la bu fekkoon ne dara jotu ko wala am na lu ko gàll amul lu ko gàllankoor dina dem ci màggal ak Touba gi ndax ki nga xam ne. moo di sëriñ Sidi Mbàkke mooy sëriñam waaye itam ku fës la ci yoonu murit waaye la mu saf ko ko macc ko xam la tax màggaliwul moo ko xam dafa feebaroon am lii di coronavirus ñu entré ko ca hôpital Fann lu tollook fukki fan te lam fa ñam moom rekk moo ko xam feebar bi du ay caaxaan te day reye ndax am na ñeneen ñoo xam ne rey na leen ci biir réew mi yooyu le kàddu la maître El Hadji Diouf yëkkati te nee na moom ku fonk bakkanam la te du anticiper deewam ba tax na màggaliwul tey màggaliwul ëllëg moo ko wax te mu ngi xaar ba xam lu ci nit mën. Souleymane Faye ak bës bi muy def ci réew mi mu mel ni daal jamono ji nit ñi jox nañ ko bopp ñi ngi koy invité ci rajo yeeg tele yi waaye ñenn ñi itam di koy kaañoo jël photo yaak vidéo ye di koy capturer di ko TikTok di ko def lii di statut ngir di koy ñaawal ñenn ñi jàppee ko dof waaye ñi nga xam ne ñoo xam dëgg kan mooy Souleymane Faye jàppewuñu ko dof bokk na ci kii di directeur général de 2STV ci lu tollook ñaari billet mag daal di ko koy jox moomu ak sëram waaye kii di Racine Sy itam bàyyiwu ko ginnaaw benn yoon moom teg na ca un million ba noppi El Hadji Ndiaye promettre ko lii nga xam ne moom moo di ab émission ca 2STV ngir mu koy amal ci weer wu nekk ñu daal di xool nag ci yan programme lañ koy amalee El Hadji Ndiaye rafetlu bu baax a baax ki nga xam ne moo di Souleymane Faye ndaka la nar a liggéeyee ca boobule tele di 2S. dañ koy jeexale ak point Covid bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale ci communiqué tey bii di àllarba yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru septembre mu mel ni feebar baa ngi wàññeeku xel dal na ndax kenn nit moo ñàkkaat bakkanam dolleeku ca lim ba jotoon ñàkk seen bakkan waaye itam ñi feebar ñi ngi wér di ñibbi seen kër terewul ministère de la santé et de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñu dëppook digle yi te bàyyi tere yi bu du bëggee mucc muccal suñu njaboot muccal suñuy jegeñaale mbokk yi xarit ñu doon taxirlu ci suñu gaal 24 li lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen jaajëfal waaye itam tey sàkku ngeen di wëyal suñuy programme di leen jox dig daje ba